alhamdu lillahi rabbil alamin alhamdulillahi wasalla bada alhamdulillahi afiisil maanihi alhamdulillahi fil xufraani wal karami noo bu baax mbooleem taalibe sëñ Tuuba yi toog jàkkaarloo ak sunu jëmm dellu di nuyuwaat baax mbooleem ñiy dégg sunu kàddu te gisuñu sunu jëmm muy seen mbokkum taalibe sëriñ Abdoulahi Lo Guèye xasida kàddu yi du yàgg kàddu yi sant rekk la ak kàddu yi présenté wu ci biir mbooloo mi kenn ku nekk xam na ne mbooloo mi ñu ci bari waxtu wu ne ñu ngi déggante te gisante bi demewut noonu loolu rek mooy sababu bi ñu déggee jotaay bii sëñ alxaaji wax na ko ñu ne ko dana ñëw teewee si ko ngir gisante ak mbooloo mi sëñ alxaaji jërëjëf moom moo ñu dugal moom nag lu mu nekk ñu nekk ca pour mu yomb rek ñu xam ne moom lu mu nekk ñu nekk ca pour ñu bañ a digloo tuuti rek dana gën a gaaw waaw pour ñu xam ne alaaji mii lu mu nekk ñu nekk ca soxna si njëkk a am ci àdduna laax laax bi nit di bokk ak soxnaam ni ko wolof bi baaxoo defee man maa ko bokk ak soxnaam soosa keroog pour pour rek ñu xam ne benn lan waaw waaw damaa bëgg rek tënk pour ñu xam ne benn lan waaw sëñ xaasim ñëwal toog nii li may wax daanaka sax yow la yow la gën a yitteel waaw xam nga sëñ ji lii tur tur dafa am solo tur sëñ xaasim sëñ xaasim mbàkke nee na sayxul xadiim ci mujjam daana ko tëjuwaale mook sëñ abdullahi mbàkke di bind mbindam mii gaa yi doon wax léegi moom sëñ tuubaa nee na sëñ tuubaa daf leen daan wax ne leen su ma bindee ba teg dee leen ko dajale may bind ngeen di dajale waaye sëriñ xaasim nee na li ñu yéem ci ahmadu sunu waaja nee na bu tàmbalee bind ñuy dajale ñun ñaar nee na jotaay bi nu toog dina fees ki kayit ba mu bàyyi nu fi dem benn jotaay mu fees mu bàyyi nu fa dem benn jotaay te bi mu tàmbalee woon du mën a dajaleekul lim bindoon xanaa kon mbind mi rax na sëñ xaasim nee na sëñ yi def noonu ñu koy xool ba mu yàgg nee na sëñ tubaa ne xaasim ma ne mbàkke mu ne àdduna daa amul solo waaye bu amoon solo dinaa leen fi defal dara sëñ sëñ xaas bi ne mu ne ko mbàkke defal nga nu dara xéwal yi la mbàkke nee na sëñ tubaa ne xaas yi mbaat da ngeen a jàpp li ngeen gis mooy xéwal yi ne lii ngeen gis xéwal yi ba jàpp ko xéwal bi xéwal yi ak xet la xet sëñ moo taalaa dugg ci kër gi xetu maafe xeeñ ko mu xam ne soxna si maafe la togg waaye gisul maafe boo xamalaak di ko ñam xet gi lan gisagul xet gi moom la sëñ Moussa Ka naan Bamba fetal rab wa maam Thierno dog ko dogat ka ne kaay leen reer gaa yi sukk a saalit mu ne bu leen saalit lii xeet gi la mban la mbana gu junniy ñay la laala gun ko ëllëg lañ koy laal am na ko way sëñ Tuubaa ko alhamdulillahi man saxoo naag cant Mbàkke lan ma digoon fes na ba mel na jant mbàkke lii doy na suy doy doy na fii ci duniyaa ñu ne am ah, mu ne tax àllaaxiraay raw nag bi xayri suniyaa mooy seen xaasim loolu laa doon wax ci moom jotaay bii sëñ seex jërëjëf noo ngi leen di bàyyi xel te man damay wax ne bépp liggéey buntu bi liggéeyu sëñ Tuubaa nga gestu gis Seex Ibrahima Fall ci biir daal ci xel àdduna ñett rek moo taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy première ahmadou sunu waaja maam isa sa maam mooy deuxième waaye Sidi Birahim Fall moo taxaw troisième posto fi mu ne boo diseenee sëñ Touba keneen koo diseenee ca wet ga bis na ñëw nit di ko xool bi yàgg mu ne kii dend ak sëñ Touba kum doon waaye Sidi Birahim faal sëñ Touba lu àdduna yàgg-yàgg kenn du la ma wax kii kum doon ku xam ahmadou xam Sidi Birahim Fall dégg leen ma ah. dama ne boo diseenee sëñ Touba wala foto sëñ Touba nga wékk ko sa néeg keneen koo wékk ca wet ga beneen foto bu mu doon bis dana dox nit di xool foto bu yàgg mën la kii dend ak sëñ Touba ku doon waaye sëñ Touba ak Cheikh Rafal àdduna doxado ba kenn laaj na la kii ku doon xam nga lu tax xam nga lu tax Sidi Ibrahima Fall daa roy sëñ Touba bu sëñ Touba waxee Sidi Ibrahima Fall mooy pratiquer mooy jëfe boo demee ci mbindum sëñ Touba da dégg sëñ Tuubaa dafa yonent bi salaa salaam moo ma sàkku ma koy liggéeyal raama rasulullahi min ilahi kaw ni xadimu wa abdullahi alallasi talaba kaw ni al xadim lawoo salaama sil bariyati xadim sëñ Tuubaa de yonent bi salaa salaam moo sàkku ma koy liggéeyal waaye mbaa xam nga ne Sidi Birahim Fall sëñ Tuubaa sàkku Sidi Birahim Fall di ko liggéeyal xanaa ñu ngi niroo soo demee ci mbindum sëñ tubaa sëñ moo taala sëñ tubaa nee na damaa départ yegg ca yàlla yàllaa ma wàññi delloo ma ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dalla ni yàllaahu ala xayril wara waxaadili xayril wara lisil wara bokku rek dalla ni yàllaahu ala muhammadin waxaadili muhammadin li sëñ tubaa nee dama ne bëre di yegg yàlla yàlla ne wàññeekul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngay jaar Sidi Ibrahima Fall lu sëñ Moussa wax mas nay xibaar ak njëbbuloom ba yàlla ma ko dégg nga kon jàll na yàlla ma ko moom moo ne ko dellul bàmbaa moom xanaa kon ñu ngi niroo ñoom ñaar bu la laajee sëñ moo taal ne la kan moo njëkk a wóotu sëñ Touba bi mu tànn Moustapha la tànn Cheikh Mamadou Moustapha sëñ bi gën naa laa bëgg bëggoon naa la waaye gën naa laa bëgg dama laa dégg nga da ngaa bëgg sëñ Modou Moustapha te kooku ku ko bëgg bëgg naa la bi Cheikh Rafal tànnee ko wuutu moom nit Moustapha la tànn muy Moustapha ak Moustapha boo demee ci ñi wuutu Cheikh Rafal ci juróomi doom la ñi wuutu Sëñ Tuubaa juróomi doom la fii jamono toll ñi wuutu Sëñ Tuubaa ci seen ñett la fii jamono toll ñi wuutu Cheikh Ibrahima Fall ci seen ñett la xanaa ñu ngi nuroo juróom-ñaar fukk at ak juróom la Sëñ Tuubaa dund juróom-ñaar fukk ak juróom la Sidi Ibrahima Fall dund loolu dama ko doon tàbbal ci baay Fall gi soxna maa sa jërëjëf waxtaanu ma damay sant rek Mbàkke jërëjëf xam nga jigéen ah waxtaanu ma damay damay damay damay damay sant soxna Maay sa Mbàkke jërëjëf damay wax lu bari ne su ma déggee jigéen ju wax na su ma doon góor a def nangam du jigéen ju am jom su ma déggee gone nga ne su ma doon mag def nàngam du gone gu nar a am jom mbaa xam ngeen ne bi nga demee màkkatal mu karam li nga doon def màkk yaa ma ko gën a xam waaye dama ko wax pour ñun ñeneen xam li nga doon def màkk li ci ëpp jigéen ko def màkk ñu ko ciy roy màkk la fa jigéen ñuy def jullit yi ñaanal ku nekk naan sa moroom yàlla na nga daw mar wataak saf ba yàlla na nga séddal ndoxum sëm-sëm yàlla na nga sànni jamra xamoon ngeen yi jigéen ko def ci diine am na benn jigéen xaajara tudd xaajara soo demee ci mbindum Sëñ Tuubaa danga nga dégg muy wax nan huwa allazi xaajara lil madina bi amri rabbihi fasana diina xaajara dafa ëmb ba weer wi war a amee doom jot boroom këram xëy ñëw ne ko yàlla nee na lu yàlla wax naa la yóbbu Madina te boobu Madina ab àll la du fu kenn dëkk kër ñëw fa mu ne ko yàllaa wax mu ne waa mu ne ko yóbbu ma koo fay nekkal mu ne ko yàlla mi la ko wax moom laa fay nekkal mu jël ko ne cëpp màddina ab diir mu am doom moom xaajara soxla ndox soxla ndox ñenn ñi ne daal seen montagne mi leer xel mu teg ko ndox ñenn ñi ne daf ne daan daw yéeg ci montagne ba xam naa gis ku ma dimbale ci ndox waaye lu mën a am bàyyi na doom ji fu mu tëdd daw yéeg ci montagne mi xool gisul dara mu ne doom ji mbaa dara du ko màtt daw ñëwaat ci doom ji xool doom ji mënumaa ñàkk ndox daw yéegaat ci montagne bi daw bi mu doon daw di def ci doom jeeg montagne bi suñ demee màkka moom la ñuy roy naan daw mar wataak safwa xaajara lañ ciy roy muy daw ba mu yàgg mu fekk fi doom ji ndox mi génne ci suuf mu naan ndox mi sëm sëm sëm sëm sëm dalal dalal ngir bañ ndox mi bëri gaañ doom ji gaa yi tànk ndox bi di ko indool di ko barkeelu naan mooy ndoxum sëm sëm sànni jamra biñ tollee ci ren di Ismaayila saytaane ñëwaat ci yaayam am doom mu dem ba amal la njëriñ sa borom kër bi nekk nangam nangam ñëw di da koy rey nga da koo seetaan te yàlla wax ko daf koo gént mu ne gees xeer yi nekkoon ci jël sànni saytaane mu daw bu ñu demee màgg moom da waaye sax na maam Issa danaay wax lu bari sax nag ne waxtaane jigéen ju baax jërul génn yoonu murit soxna Aminta Lo soxna Aminta Lo mooy wajuru Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Lemine sëñ Touba nee na xam nga xam nga xam nga nii nga def soxna si lu am solo la muy jël sa bët teg ko fu sori jël sa bët teg ko ca mag ña jël sa tànk nag fu sa bët tege nga yàlla na nga yeggale Mbàkke soxna Aminta daa nekk ci kër gu ñuy wax kër sëñ ma jang faaloo sëñ ma jang faaloo yor ko boroom këram muy liggéeyal sëñ ma jang faaloo yàlla ci moom sëñ tubaa doxam boobu mu daa dox di dox ba yegg si kër sëñ ma jang faaloo mbubb mi sëñ tubaa sol tilim mu summi mbubb mi jox sëñ ma jang faaloo na ko dimbale ma ci ko fóot mu topp soxna yi comme mu àkk nga ne ko damaa aaye ku mu àkk mu ne damay bojj ku mu àkk mu a nàngam ba beeg soxna minti mu ne ko naa ko def defar ko ba sëñ ba mbubb mi mel ni mu jox sëñ ma jeg faaloo bu jox sëñ Tuubaa mu ne ko nii mu ne ko sama soxna si ñuy wax amintaloo sëñ Tuubaa ne ko nekk na ñëw ñaan wax ma lu mu bëgg ma ñaanal ko yàlla defal ko ko mu ñëw sukk ci kanamu sëñ Tuubaa moo boroom këram sëñ ma jang faaloo sëñ Tuubaa ne ko wax la loo bëgg ma ñaan la yàlla defal la ko soxna amintaloo ne ko doom ju mel na yow laa wax na ne keroog sëñ Tuubaa daal sóonu waaye def na ñokk keddu ju ne ko doom ju man la man kenn la woon soxna si sëdd poroxaana yi way juram waaye dinaa la ñaanal nga am ñaari doom yu ñu xam ndeka ñaari doom yu ñu xam ñu mu koy ñaanal ci moom ahmadu la koy amee si mooy Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Lamine sëñ Tuubaa dina ëllëg yowmal xiyaam bu nit ak jinne ak malaaka teewee ñëpp teew sëñ Tuubaa dina géwal bu gisee giiram ni muy def di ko wax di ko joxar bi di wax di joxar bi sëñ jàkkaloo amintuloo di ko tagg di ko joxar bi ba ñëpp naa soxla si kan la ma ne amintuloo way jur Mouhamadou Moustapha ak Mamadou Lamine a moom sëñ Tuubaa ne ëllëg yowmal xiyaam lu ma man ci góor yi su ma gëstoo aw bu saman ko ci jigéen ñi kon Mbàkke jërëjëf wax naa léegi ne waxtaanoon dañuy dañuy kii rek sëñ bii li xasida yi ngeen nekkoon rek mooy yoon bi xam nga sëñ Tuubaa lu muy wax ba gaarante àjjana ci mbindam lu néew la sëñ Tuubaa ne sama mbind mi ku ci man wenn bayit wenn koo doon boo dee da nga dem àjjana te kenn du la isaab xanaa loolu la gaa yi wër man xafisa ab yaatal la tii matxu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam daxalal jannata bi xayri asaabin sëñ Tuubaa bind ah gabon gii ngeen di waxtaane gabon gabon gii ngeen di waxtaane sëñ Modou Baara doomi sëñ Xaadim du Baara la di sëtub sëñ Baara moo ma wax ne ma gabon dem naa fa bu yàggut ne ma waaye waxuma fa sëñ Tuubaa nekkoon jamono ba mu fay ne waaye jamono bii ñu toll man mii di sëtam ku ne moon am fi ñetti fan awma fitu am fi ñetti fan kon jamono ba fa sëñ Tuubaa dem nu mel gabon maam Cheikh Anta nee na Cheikh Mahamad Lamine Diop Dagana moo ñëw ne ma wuyul sama ju baax ja Gabon neena na turu Gabon ci moom laa ko njëkk a déggee yoon wu metti lool nag waaye Gabon nag yéen ña fa nekk am ngeen chance xam nga tax am ngeen chance dëkk bu sëñ Tuubaa bëggoon la mbaa xam nga ne sëñ Tuubaa ñaanoon na yàlla sax nekk Gabon ba faatoo fa mas ngaa dégg lool soo demee ci mbindum sëñ Musaa Ka da nga dégg mu naan sëñ Tuubaa naroon na koo defe Gabon ñu wut di yori bong mbaa mu dem ba ne meng kenn dootu xam réew mu mu ne dégg nga ko sëñ Tuubaa naroon na koo defee gaboo mooy faatu ñu wut paas di yor yi bong mbaa mu dem ba ne meng kenn dootu xam réew mu ne maam Cheikh Anta moo delloo si sëñ Tuubaa ne ko Mbàkke xam naa la yàlla mi nga ñaan ba nar a des fii naa la Mbàkke soo ko ñaanee mayal la nga jël si waa réew maa la gën a soxla wallaahi laasim ñoo gën a soxla sëñ Tuubaa nag waa Gabon nag jéem fa nekk waaye ñoo gën a soxla sëñ Tuubaa waa Gabon nag ah? Mbàkke te sëñ Tuubaa nee na bi may fekk maam si xam ne bi may fekk sëñ Tuubaa Gabon ci fekkin wu doy waar laa ko fekk nee fekk naa sëñ Tuubaa gën a tuuti lim tuuti woon nee xool naa sëñ Tuubaa ñuulaay bi yokku nee na ma xool sëñ Tuubaa bopp bi baramoo ba mel na bopp Baay Faal nee na ma koy xool mënatuma téye sama ronkoñ ma jooy jooy yàgg lool nee na sëñ Tuubaa jël loxoom bu tedd ba teg sama kaw bopp ne ma seex xanaa yërëm ma moo tax ngay jooy nee ma ne ko Mbàkke yërëm naa la Mbàkke moo tax may jooy nee na mu ne seex ma dangaa yàkka damaa wéet gaboo nee na ma ko mbàkk ku lay wéttali maam seex ne mu joxoñ ma loxoom bu tedd bi ci biir néeg bi ne ma seenoon lal bee nee na ma xool seenu lal ci biir mu ne ma rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo ci toogoon moom ma wax sax ne ma seex anta sarab ci baax jaa ngi waaye kay kon baax nan sant nan bu baax gërëm nan ñu ngi ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ca bu baax dégg na li nga wax baax ñi ngi am pas-pas ak yéene ànd ko ak ci ci yëpp rek barke alxuraan daraje xaside barkeb Serigne Mouhamed Mbacke ma tëdd Taïf wasalaamualeykum wa rahmatullah. comme que gars yi dañoo bippé dañuy may ma rappel mu waa man ma may ma rappel ko kon jërë ngeen jëf barkeb Cheikh Massamba barkeb Cheikh Massamba barkeb Cheikh Massamba fas yéene liggéey maam Ram Touba barkeb Gabon barkeb Gabon. yor seen yor bopp tey dem tey ñëw wa sallallahu taala ala sayyidina wa وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بالمناجات وابرأ الأخناق قصيدتي قصيدتي قصيدتي فاخت قصيدتي فاخت فاخت قصيد الكرام فاخر قصيد الكرام فاخر فاخر قصيد الكرام فاخر قصيد الكرام ولتقود من خير المرام هديتي هديتي هديتي مؤجلة مؤجلة مؤجلة كل ملك كان مناسع وصاح الملك ما تواجه نصر الله لي بالله إله لي بالله إله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حدث وقديم رسولك من كل ما من كل ما يسره ودرا بقدر عظمة ذاتك وكن له بما يسره وينفع ولا يدرى في كل شيء ما إله دخول الجنة التي وهي المتقون آمين يا رب العالمين وهب لي كل من تعلق به كل ما تطلع من منافع الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين بسم المهيمن بسم المهيمن بسم بسم المهيمن مجراه بقدرته سبحانه ومنصاه halaman mali subla salami subla salami subla salami subla salami bismillah salikatan tabarakallah fi ali wa mutali فالله يكون هنا فيها ويسمع من العتاب في صليمه وفي جبل اللهم صل على سيدنا ومولانا wa mawlaana Muhammadin jaaraama Cheikh Ibra Fall jaaraama Cheikh Ibra Fall ku supp Cheikh Ibra Fall defal ñu màggal ko Cheikh Ibra Fall mas xibaar am njibu bay wax ak yàlla mi ko moom moo kane Amadou Bamba moo moom raasi ko jox see pexe Cheikh Ibra Fall tegtal ko yoon wa amur diaw baraw pexe murit ba xam ngërëm bari murid te dootu leen a texe Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall bari murid te dootu leen a texe mu daa di dem tey ba Ndakaar ngir dégg Bamba di fa xaar seet na sëriñ tey ba Ndakaar sin njàng lay xamee pexe Cheikh Ibra Fall te dugg guddi li xaar bët set mu xëy ba tisbaar sëriñ na taatale fa jaar leeram nga wan ko le pexe Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Fall ku sopp Cheikh Ibra Fall jug leen taxaw na màggal ko Cheikh Ibra Fall ma taatale ñu ñu joor ñu ñu ko jëm Mbàkke Kajoor sëriñ ba yónnu ko sa buur Cheikh Ibra Fall topp say fexe mu gis sa Cheikh Adama Gueye sànni mbiram daal di cee mooy won ko Bamba Ahmadu Bamba sëriñ bi naan ko foo fexe Cheikh Ibra Fall ah, ah, ah, Cheikh Ibra jaraw lakk yow ku la bañ danañ ko lakk yow mal kun fa lakk dala bañoon ci xarnu bi ëllëg yow mal kun xar ab xolom fii ku nu ngay bëgg Cheikh Ibra Fall du tuta bi aljanaatu biram ji bi nga ca ngaay góor dëkk bàyyim la la faal Cheikh Ibra Fall alaaji Fallu Mbàkke xam na ko jumaa ji yow seera na ko sëriñ Fallu maamam sërif la sërifun bun sërifun ci lii ma jub la alaaji Fallu Mbàkke alaaji Fallu Mbàkke du xotti saatir du ta sa yaakaar du doo ko koy laaj bu ñu may la gii jal law laa ko sëriñ Fallu loolu dem na xiwal yi baawaan tuddutul jeex baba dama ana soppay sëriñ Fallilu ana soppay sëriñ Fallilu ana soppay sëriñ Fallilu ana soppay Serigne Fallou sa baay bi tas yaakaar mu kay laaj ku ñëw mu may laaj nga gi jël loola ka Serigne Fallou loola ka Serigne Fallou mënutuma a jikki ana ku fi a njuuy mënutuma a jikki ana ku fi jooy ay sama sang ba Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou sëriñ Saaliw Mbàkke ay bu yëglu woon kenn du fi des waaw walaay danoo nax ci ndaw ba dem nu des sëriñu soxna maam Isa Mbàkke sëriñ Saaliw Mbàkke sëriñ Saaliw Mbàkke unutuma jikki sëriñ Saaliw ku musaana toog ak moom koo deeti toogatin dootu la saf jaaraama sëriñ Saaliw sëriñ Saaliw ku ko musaana gis koo deeti gisati dootu la saf jaaraama sëriñ Saaliw jaaraama Serigne Saliou sa waay bi ñëwee waay kaneen bisu la gëm di gëm kaneen waa Gabon gii xam nan kuy Serigne Saliou sa waay bi ñëwee waay kaneen bisu la gëm di gëm kaneen mani ku bëgg a dem Gabon jógal taxaw ku jóg taxaw di nga tàggoo tànk yi métti Serigne Saliou Mbacké ana soppay sëñ Saaliw ana soppay sëñ Saaliw ana soppay sëñ Saaliw ana soppay sëñ Saaliw ana soppay sëñ Saaliw sawaay di ñee waayu kaneen dee su la gëm di gëm kaneen sawaay di xat jëm faneen jërë ngeen jëf yal na ñëpp am jàmm te defal na tawfiix jërë jëf jërë ngeen jëf sunu xol sedd na ndax sëñ xaasim lii lu am solo la tubaarkal la yàlla na yàlla gën laa taxawu dëbb la kàttan ndax sëñ tubaa a ko kon dañuy barkeelu ay bayit yu gàtt rek daa di wàcce kàddu gi barke borom daaru وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد نبلم وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما إجاب دارين فتا وسمن النارين وهو المرتب على رف خولي تعالى كلما أخذوا نارا للأرب أدفع لهم هجاب دارين فتاة وسمنا النارين وهو المرتب على حروف قوله تعالى كل ما أخذه نارا للأرض أدفعلاه كل المامد لمن ياسمنا مصليا على الذي يمنع لو جميع خلق والأمر بلا تنازع ولا اختلاف مجلى لو سماع جاي المصطفى مغرب أروم خيرا أمني ومرغبي إلى آيكم بالمصطفى الوابي مدافعا علي وانت بعث لينا يا في سبدك نفس دركا وتغطير دا وفي خ جميعنا لما تهب واغفر لنا ذنوبنا يا رب خدنا إليه اسمتي والنجاة أنا كل مكر وبلاء إلاتي دمي دمي من أراد درنا قبل الظالم إلينا وقنا وكيلنا في جبر وقدر أنت وأنت قوسنا من درر أنت الذي أوليتنا ما يرغب فضلا فكفنا بما يرغب نجي بمن لقى بيدك دعاف واللطوب وكفهم كل مخاف يسري قلوبه مدركين كل علم بخير الله ونجرى من غير غير رجعنا ندرك لا والكريم إليك ليلى سواك نرب في هداك لا سوى نرب لسنا ومزنا بك من نار الأب والنار خرب فكفنا كل نزاب لسنا بينك أسيريا وكيل فكلنا هند الخفيق والثقيل هدنا عن السرر والسرار بهذه الدار وتلك الدار رجعنا مدك يا الكريم بعي ما أميد لم تفضلا بسيد الأنام أدوادنا كيد من مولاه أعوذ بالله لا إله إلا الله طلبت ولك نكون ما شاء لك وأن تكون لأغراضنا فيك وبالمتقيمة وإلا واسمر المدين أنا دمرات أبدا وجنة عن كل سوء من السلم بندي أبلي ما يبقي موسني في ترعتي بالمصطفى محمدي أدم علينا يا كريم يا مسائرة باطنة تكرما أنت الإله وأنت الغار المامع هديت والجبار لك عليق مال والأمر ومنك يأتيني منا ونذر ليلا لا كل مريد والمريد وسقر لي كل باق وصول وعلى المولي بدور وثق بسلم وسلم في دور أنا جمال مغم أمنا fur na yàlla ma xam ya ak sañ la ko wax ak doole jaag may ya ak xar baax ya yàlla ii ma jooy fallu lay ma silla ñaan ni wedaam saab sëriñ saab xarit cey ma sant tey jii ma jooy seexina ana soppey sëriñ fallu yee tey jii ma jooy seexina sëriñ fallu mbër ma ni mees lu nekk ci duniya jooy na yàlla jullit yaa nguur gi ak àddina ñépp ko jooy ñu nu ñépp jooy nan ko ngir baaxam nga yàlla moom daana fekk weeru bàkkaar ba xol ba tilim mu fët ko laabal ko bam leer nañ yàllaaw moom daana fekk ku fan way jeex mu yokku fanam fallu yàllaaw ku sopp sëñ fallu boy de tabbi jannatu ku noonu baayu mbeen boy de naan yàllaaw na ngeen ma déglu te sellal xol yi koy wuta xam lu ne ci mën mi na ko xam taram bi kenn bañu la gaay yi diine dinaa leen wàqi fees sama xol bambaay ki fees sama xol yaram bi kenn bañu la jërëjëf yàlla ñëpp am jàmm yàlla ñëpp am jàmm kawe njortam tam ànd koog taalibe yëpp barki Cheikhul Khadim di ci teg sëriñ Amdi Moodu Mbend xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall Lampo di ko ñaanal yàlla su borom mu yàgg fi loolu te wér ba liggéey bi nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Mountakha teg na ko ci loxoom ci dëkk bi yàlla na ci jëf ba jëf ci lu kawe njortam barke Cheikhul Khadim mbokk taalibe yi mu ko àndal yépp di ñaanal njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñoo ñu nekk ci dëkk bi yépp njabootu maam Cheikh Ibrahima fal gi nekk ci dëkk bi yëpp yal na leen yàlla suñu borom doolee taxawu guddal seenu fan ban gunge ñu ci liggéey bi ba ci kanam ginnaaw bu loolu jàllee ñuy nuyu bu baax soxna maam Issa Mbàkke ahlu kafe mi nga xamante ni tey jataay bi moo fi Sëriñ Tuubaa di ko ñaanal bu baax a baax Mbàkke mu yàgg fi loolu te ndax boo déggee turam rek te xamoo ko sax boo jàkkaarloog jëmmañ ji danga xam ne sëñ Tuubaa rek a ko ñor ndax kenn ku ne xam na ne sama kalaas gi ban fi toogee ba léegi fenn fu ne ña ngi fa juut juutu jëm kenn ku ne yaa ngi am soxla di jóg fu ne nga dem fa fee mu toog ba mu fi toogee ba léegi nee mu toogee sensé wu ko te moo ñu gën maam fuuf jël jëmmam ji wàcce ko lu dul liggéeyal sëriñ Tuubaa ñoru ko kon soxna maam Isa yàlla nga gudd fan yàlla nga wér yàlla bu seytaane man ci yow dara yaag ñi ngi ko àndal ñëpp barke Cheikhul Khadim ñu de kontaan nañ ci yow lool te ñun dañoo doon koo xam ne sëriñ bi rek lañuy xool ci doomu aadama ak koo mën a doon ak tur woo mën a am bu noppee gis ci yow ci sëriñ bi rek yaag paanu mbali lañ yemale loolu moom mooy suñu mbir ndax ndaje mi ñu daje fii kenn ku ci ne bu dee ci wàllu li ngay xëy di ko uti dangay ngay xëy uti am def ci sa poos yóbbu sa kër jox sa njaboot amul kenn ku fi defal kenn leen kon ndaje mi ñu daje di jànq si di Sëriñ Tuubaa yi di waxtaan ci Sëriñ Tuubaa sëriñ bi dong ko tax bu ci sëriñ bi génnee kenn ku ne dem sa kon yàlla ñu yàlla suñ borom téel sunu bëgg sëriñ bi ba dara bañ cee manqué barke Cheikhul Khadim ginnaaw bu loolu jàllee ñuy yëkkati ay kàddu cant ak ngërëm waaye ay kàddu yu ñaan ca sunu waajur wu tedd wa di sëriñ Mouhamadou Sarr mi nga xam ne lii lépp bu amee moo tax ndax garabkat mënta meññ lum doonul garab goo gis ñu ne meññ na boo demee la garab ko doon dong lay meññ parfum boo ko ubbee kubéer ga mënta xeeñ lii parfon ba di xeeñ lee la parfon ba doon dong la kubéer gi xeeñ kon lii muy loo xamante nii moo ko liggéey tarbiya sëriñ Xaasim Mbàkke ba yàlla su borom dogal mu wàcce ko muy loo xamante nii ñun da tànk lañ xëy na man mii may ki nga xamante nii maa mag ci ak njabootam samay rakk yépp topp ci man ginnaaw biñ ko noppee gis ci jaahir samay rakk yépp topp ci man déggal ma lool muy góor yi muy jigéen ñi ñi ma bokkal ndey ak ñi ma bokkal bàyyi may ñaan yàlla su mboroom ah liñ gis ci man ba tax ñu di ma bàyyi xel ba ku ma ci sant nga def ko ku ma ci digal nga def ko ku ma aye nga bàyyi ah, yàlla na ma ci yàlla su ruus ba bon gis ci man lu may bi ndax kat jataay bi nga xamante ni tooge naa ko du ay at du xam-xam du dara yàlla su mboroom moo ñëw ak coobereem rek ma tooge ko di ñaan yàlla su mboroom fa mu tëdd mooy moom sëriñ Modou Sarr yàlla na ko fa yàlla suñu borom fekkee ay xéewal yu yaatoo yaatu mook mboolem ku fa fekk ak ña ko fa fekk ñëpp fu mu toll day ñun ak njabootam war nañuy ruus di def loo xamante ni tey buñ ko ko wanee tey mu am kersa fa mu nekk war nañ koy bàyyi xel bu baax a baax a baax ginnaaw bu loolu jàllee ñuy sant baax suñu waajur wu jigéen soxna Daba Ngom nga xam ne ñoom ñaar dañuy ñaari doomi daara yoo xamante ni suñ borom ba leen boole mënuma sax di wax ci ñoom ndax nit bu toogee di wax ci ñaari woy juróom mënu cee wax leen lu dul lu baax ndax ñi mu wuta toog di wax leneen donte que leneen am sax du ko wax waaye ñun nag lii nga xamante ni moom lañuy wax barke Cheikhul Khadim mooy li am ndax ki nga xam ne soxna say moom sëriñ xaas moom lañ ko jox mu nekk fa di fa sa bàjjanu ba yàlla su dogal dëggal moo dem kër kii soxna euh, kii sëriñ Xaasim Mbàkke yor ko tërbiye ko ba yàlla su borom dogal mu yore kër kon loolu bu amee lépp loo xamante ni meññee na ca bu baaxul rek dafa def dafa jaar feneen ndax pañe guro moom mënta ñàkk sànkar mënta ñàkk waaye bii pañe moom yàlla su borom suturaalagun nañ ci ba gisagun ci sànkara te yàlla bu buñ ko ci gis di ñaanal bu baax a baax sama rakk ji di sëriñ xaasim man de wér na ma ne euh, damay nekk bërëb yu bëree bëri di siggi ndax jëmmam ji ndax man moom wér na ma ne man bu dee man sama jëm bopp rek man mën na maa bañ a siggi fenn waaye jëmmam ji tax na ma siggi fu bëree bëri barke Cheikhul Khadim man du waxantu ndax yàlla su mborom dafa dogal ak koo mën a doon comme ni ma ko waxee woon léegi de mi ngi nii ñoo bokk ndey ak bàyyi barke Cheikhul Khadim duma ma ko jey du ko wax du dëgg bu defee lu du yoon damay jàkkaaram ma wax ko ndax man loolu mooy li ne ci man waaye wóor na jëmi sëñ Touba sant naa ko gërëm naa ko ci ni nga xamante ni noonu lay doxee ndax bu fekkoon dafa fam nekk dafay doxe neen nu bokkut ak nii ñu ñëw di ma ko wax duma ko dóor duma ko saaga duma ko du ma ko sànni ndax li ñu xas bokk nañ ko waaye du tee ma am lu ma metti ci lañ ñëw di ma wax ne ma def na leen lu bokkut ak li ma war a def waaye kon bu fekkee ñëw nañ di seere ci moom kàddu yi ci sama kanam man damay gën a firiwaat gën a santaat yàlla suñu borom barke Sëriñ Tuuba lii nga xamante ni moom la ma yàlla dénk muy wàllum sonorisation ma di ci liggéeyal sëriñ bi ñii ma ci àndal muy gone yëpp xam nañ ko bu ma ci noppee liggéeyal sëriñ bi rek te ko fële ñoom xam nañ ko barke Cheikhul Khadim lu du sikrullah du xasida du waxtaan sëriñ bi barke borom Tuubaa du ci jib ak loo ma mën a fay ci àdduna doomu aadama mënul am maqaama yi ma jël sama rajo yi micro bi ñu koy wax leneen lu liggéeyal sëriñ bi xalaatuma ko ndax ba ma koy sàkku liggéeyal sëriñ bee taxoon ma wut ko dem nañ ba ci sama mbokki animateurs yi nga xam ne ñoom laa bokkal dëkk bi ñu yor ay sonorisation comme man am na ñoo xam ne dañ naan ma yow liggéeyoo ma ne nañ jërë ngeen jëf campagne bi bu ñëwee bii jàll rek am na koo xam ne ñëw na ñaar fukki fan ak benn yoo xam benn bu ne mën naa laa fay journée trente cinq mille bu la neexee nga calcule ko ma jox la avance bi xaaj ku ci digg jox la avance bi bu ñu demee ba ne juróomi fan ci des ma jox la sa mot li ma ne ko boo ma doon fay journée bu ne deux cent mille samay rajo lu dul liggéey Sëñ Tuubaa du ko def te billaahi wallaahi wa taala yi mboolem ku ci duggoon ca campagne ba tey bu la neexee boo ñëwee ma abal lay bagage barke Sëriñ Tuubaa kon ma bëgg ñu xam ne lépp lu waay doyox di ci liggéeyal sëriñ bi gëmal ne lii sëriñ bi nga ciy liggéey loo ci bëgg mën nga ko ci am barke sëriñ Touba te fas yéene maa toog at ba at ma dellu si te dolli ko ñaanuma ko yàlla suñu borom xalaatuma ko ci àdduna ndax damay bëgg mu ridi ku ci jot ku ci soxla man cee jot kon maa ngi santaat yàlla bu baax a baax di sant sunu kilifa gi nga xamante ni moo toog nii muy sëriñ Xaasim Sarr di suñu dombaay nga xam ne tey mooy kilifa kër gi ginnaaw bi suñu woy jur jógee fii moom lañuy jàpp di ko xoole comme wayjur ndax la nga xamante ni moom la doon suñu way jur doxe suñu diggante ak moom loolu la taxawee di ko taxawee suñu diggante nga xam ne way juróomu góor ak sama way juru góor ñoo bokk benn bàyyi yàlla suñu boroom dogal ba mu xamee xàmmee rek la na fa ñukk lépp ñëw ñibbisil sama papa fii barke Cheikhul Khadim nekk ak ñun jàppe ñu comme aw rek rakk yu mbokkal ndey ak bàyyi du lim ñuy mag mag du def dara te waxtaanu ci ak ñun ñu nit rus nañoo def dara te jàkkaru ma waxtaan ak ñun waxtaan ak moom ba mu jox ñu ci ndigal ñu doon koo def nit nag mën nga koo jiital na ko yaay sama kilifa waaye boo demee ba ci yàgg nag boo gisul lu mat kilifa ca moom yaay suñ kilifa mën na caa def ndax wax ji nga ba pare waaye nag na ngay doxee moom yaa ko xam waaye ñun kenn amul sañ-sañu def dara ci kër gi te waxtaanoo ceeg moom barki Seexul Xadim bam ñu te lépp lu mu la ca wax boo ci jaaree gis ci njariñ kon ñu ngi koy ñaanal moom maam xaas me yal na ko yàlla su borom sàmm aar ko guddalu fonam di sant mbooleem koo xamante nii rek teew nga ci bis bi ndax man bis bi damaa jàpp ne fekk si wuñ kii man lañu fekk si ndax jëmmam ji bari na ñoo xamante ne xamuñu ko